Cheikh Madul Bachir ne siyaar bii mi ngi koy teg ci loxol Cheikh Abdourahman mi nga xam ni moo fi defaat ma tey ne di la sant bu baax di la nuyu ci bis bii ne bis bii kat ku ko tudd sa waajur wa waaye noo gi kat noo ci bokk yem ndax bisub Sëriñ Tuubaa la kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ko jottaliwaat suñu cant rek. ak suñu ngërëm. ci jëmmum ji. ne yàlla kat dafa def. Eh, ne jàpp gi nga ko jàpp wax naa ko léegi. ne lepp loo xam ne jàpp nga ni ndamal Cheikh Mamadou Bachir la. nee doo ko ca tàggu. te du soxla nga yëg ko. képp koo xam ne képp koo xam ki yow sëriñ bi jàpp nga ni kooka nit ku baax boo wéeteeg moom. boo da nga ko da nga ko wax mu ñaanal ko da nga ko wax mu ñaanal ko te yow doo ko ko wax moom. nee loolu nag. kenn amatul payam. nee dañ lay ñaanal ci sa barke maam. li la sa kilifa yi yéene woon. li la sa kilifa yi yéene woon. ak yoon wépp. ak yoon wépp. ko cey loxo. yàlla mottali ko cey sa taxawaay bii. ba la sa kilifa yu baax yi yéene woon. ba sa kilifa yu baax yi yéene woon. di Serigne Mbakke. di Serigne Mbakke. ak Serigne Abdoul Fattah. ak Cheikh Abdoul Fattah. yàlla mottali ko cay loxo. yàlla mottali ko cay loxo. sant nañ bu baax a baax. sant nañ bu baax a baax. gërëm nañ la bu baax nañ la bu baax a baax. Euh, démb rek laay wax nit. nee démb rek lay wax ak nit. ci Cheikh Mouhamadou Moustapha. ci sëñ Mouhamadou Moustapha. mu ne ko nit ñi de xam nañ sax taxawaayam. mu ne ko nit ñi de xam nañ sax taxawaayam. waaye am na lu leen cump. waaye am na lu leen cump nag. dafa doonoon jëmm joo xam nee dafa doonoon jëmm joo xam ni. dafa jàmbaare dafa jàmbaare woon. daanaka moo taxawal lii yoon wi ta di doxee tey. nee daanaka Cheikh Moustapha nii yoon wi doxee tey moo ko taxawal. te loola xam nga ne ci bu métti la woon. te loola ba mu koy def ci jamono bu métti la woon. ndax wóotu sëriñ bi. ndax wóotu wóotu sëriñ bi. ci la jafe-jafe am ci la jafe-jafe am. ndax kuy deeyaaleeg boroomam ndax kuy deeyaaleeg boroomam. rasulilah di ko dikkal rasulilah di ko dikkal. muy wax ak jibril muy wax ak jibril. nga war koo wuutu nga war koo wuutu. war a wax ak nit ñi wax ak nit ñi. ci yooyu jamono lu jafe ca yooyu jamono loola booba lu jafe la. waaye nag mu ànd jom. waaye mu ànd jom. ak fit. aku fit ak nangoo liggéey ak nangoo liggéey ba ñëpp fekk ko ca ba ñëpp fekk si ko kon ni ko waxee léegi kon ni ma ko waxee léegi rek ñun njabootu Serigne Touba ñun njabootu Serigne Touba njabootu Serigne Touba gi ci boppam di ay doomam koo ci mës a dégg mu tudd koo ci mës a ko dana seere ci moom loo xam dana seere ci Cheikh Moustapha loo xam ni. tàmbalee ko ci Cheikh Modou Fadal. tàmbalee ko ci Cheikh Modou Fadal. lim daa wax sama mag. lim daa wax sëñ Modou Moustapha sama mag ju baax ja. ne loolu band yi ñëpp ko. ne Cheikh Abdou Khadir fu mu sa mës a tuddee. mu baax mi. danaa sëñ Modou Moustapha mu baax mi. ni taxawoo. ndax ni mu ci kenn ku ci ne. daa tax ba mel ne sëñ bi ci kaw suuf. daa tax ba mel ne sëñ bi demul fenn mi ngi ci kaw suuf. noonu la ande woon ak ñoom. noonu ku ci ne samp na la. ku ci ne na la. taxawu la taxawu la. boole la nit ñi boole la nit ñi. Euh, ne Cheikh Abdou Khadir Mbacke daana nit li. dafa am kilifa gu ko laajoon. daa am kilifa gu ko laajoon. ñu ko damaa dégg ñu ñu ko damaa dégg ñu ni. ku ànd ci sa julli ñu ko. ku ànd ci sa julli ñu jéggal ko. mun ko ah, loolu de li ma ci a joxe firnde bu dee lu am la. mun ko loolu bu dee lu am la li ma la ci mën a joxe firnde mas nañoo dem ca Taïf. mas namaa dem ca Taïf. ak njabootu sëñ Touba gi. ak njabootu sëñ Touba gi. gane ji Cheikh Modou Moustapha gane ji sëñ Modou Moustapha. sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou di génge jullee gi. nee sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou di génge jullee gi. ku ci nee ni sa morom na jiite. sëñ Modou Moustapha daal di warlu ci julli. sëñ Modou Moustapha daal di warlu ci julli gi ni. ni julli gi de képp ku ci ànd. topp sa ginnaaw ku topp sa ginnaaw. jéggal nañ la kon foofa la wax ji jóge sëñ Abdou Khadre ni ko bu dee lu am la de foofa la wax ji jóge kon moom. ku feesoon dell la. ku feesoon dell la. gis naa ci mbind sëriñ bi. nee gis na ci mbind sëriñ bi. mbindum loxoom. muy wax ne yow sunu borom. na nga def Mouhamadou Moustapha. na nga def moo Cheikh Modou Moustapha. mu nekk kilifa képp kum jamono. mu nekk kilifa képp kum jamonoonteel. kon loolu mooy jotaayam bi kon loolu mooy jotaayam bi. loolu mbindum loxoom mu teg bëtam la. ak yeneen yu bëri ak yeneen yu bëree bëri. kon ñu ngi sant bu baax a baax. di nuyu Serigne Moustapha Sarak ju baax ji. ak Cheikh Mbacke mi Ndiaye ak mbooleem taalibe yi fi nekk yëpp. Bachir. sëriñ Abdourahmane nee na mi ngi lay delloo ab nuyoo di am mbégte lool te yàgg koo am waxtu woo teewee fi kanamam wala mu teew fi sa kanam nee sant na yàlla bu baax nag ndax moom sunu boroom moo ko boole ci sëñ Touba muy lu mu xam itam di lu mu nangu ndax nee na sëriñ bi danaan wax ne ñaar yii di indiwuma ko ci Mbàkke dama ko cee fekk teel a mokkal alxuraan ak fonk kilifteef nee na loolu nag ba mu ko xamee la xam ne lépp lu ñu am ci yoon wi nangu ak toppe moo koy maye. dëgg loolu nag sëriñ Mountakha mii fi nekk tey nee na loolu firnde la ca loola. ndax da daan wax ñi mu topp ñëpp ni leen bàyyee naa leen ak sama bopp bàyyi leen seen bopp nee na moom nag yoon woowu rek lay doxee li ñu wax tamit ci ni mu toppe woon ay magam. Mhm. nee loolu day lu ko war. ndax ay magam muy sëriñ Mbàkke la dale ci sëriñ Mbàkke bi fi sëriñ Cheikh jógee te lu jiitu sëriñ Cheikh di fi jóge nee na sëriñ Mbàkke leen yoroon la waroon ci seenum njàng lépp moo ko doon toppatoo bi fi sëriñ Cheikh jóge yi itam te sëriñ Mbàkke woo ko mu ñëw da ko ne dama bëgg nga toog te jàppale ma ci liggéey bi nee na loolu nag dara mënu koo wecc ndax xam na li sëriñ Mbàkke yanu woon kon ku mu doyloo ba ne la dama bëgg nga toog jàppale ma ci liggéey bi am na lum namm ci yow mu teel a xam loola itam moo taxoon bëggutoon dara seere nañ ba tàyyi yitam ndax ku jege woon sëñ Mbàkke lañ nag seere nañ ba tàyyi sëriñ Mbàkke wax ci moom ba ci këram gii mu njëkk am daa wax taalu bay ne Abdourahmane day bu ngeen ko defarul kër du am kër kon nag loolu lu muy seere rek la di wax ne moom loolu rek la xam sëriñ Abdul Fatah mi fi mujj itam te mu wutu ko fi nee na itam noonu la àndoon ak moom ndax loolu mooy li ko waroon fii mu toog itam nee na jàpputoon ne dana fi toog yaakaaru ko woon itam te ruu ñooñee mu wuutu muy sëriñ Mbàkke ak sëriñ dafa Fatah bu fekkoon ne ak ruu da koy jot nee na ruum gi moo ciy jiitu waaye nag dogalum sot borom moo dikk mu nangu ko sëriñ Basiru sëriñ Abdourahmane nee na sant na la bu baax gis na taxawaay yi nga ko taxaw gis na jàpp gi nga ko jàpp gis na fonk gi nga ko fonk te léppam nga ne kilifaam nga ci wet gu ne ndax moom li faral di wax moo di képp koo xam ne nii way nga ak lum la féete féete ak mag Serigne Cheikh rek la lay xoole te noonu it lay doxe kon nag moom yow daa am cër bu mu am ci yow nga nangu cër booba itam féete ko fi nga ko war a féete nee na amul lenn lum lay defal loo xam ne daa jàpp ne jot na fi nga ko teg ak ni nga ko def benn lenn lum la defal lum jàpp ne jot na li nga ko defal ak fi nga ko féete nee amut nee na nag sëriñ bi dalaa yan muy yan bu diis waaye ñoom nag duñ yan ku amut ku ñu téeñalut duñ yan it ku ñu wërta yan mu xam ne liy waru garam di waru garu képp ku di murit di waru garu képp ku bokk sëñ Tuubaa mooy jàppale la ba yan bi woyof nee na loolu moo tax jamono ju ne ay xalaatam ak i bëgg-bëggam mooy nga am réussite ci lii sëriñ bi sant ndax nee na loolu mooy réussite yoon wi ndax teguñu la fi ngir sa bopp teguñu la fi ngir kenn dañ la fee teg ngir yoon wi te it loolu mat nga ko sëkk ndax bañ la ko joxeeg léegi sëriñ bi nee na yàgg na lool waaye kenn mësta gis njuumte wala rëcc-rëcc boo def loolu nag sëriñ bi la sant liggéey bi moo lay jàppale nee na sant na bu baax jamono ju nekkit mi ngi lay ñaanal yàlla suñ borom gën laa aar suñ borom gën laa sàmm suñ borom gën laa taxawu ba li nga yéenee liggéeyal sëriñ tubaa ci wetu sa mag yu baax yi nga mottali ko te ànd ko ak ñoom sëriñ bi nee na sant na bu baax